xanaa sant yàlla rek bi ñu amee tey bis bu mel nii nga xamante ni l'islam moo ko tax a jóg alxuraan moo ko tax a jóg yàlla may ñu ñu fekke ko bokk ci di doomu daara di doomu lislaam ku am bis bu mel nii da nga ciy sant suñu borom bu baax a baax mais également sant ñi nga xamante ni ñoo waral bis bi muy ñan muy ñi jàngale d'abord ndax boo alxuraan ni ustaas yi bu ustaas amul njàngale ma du mën a sotti boo nee alxuraan xale yi waaye boo nee alxuraan ne yaayu daara yi ñoom ñi nga xamante ni ñoo séq bis bi yëpp ñu ngi leen di sant bu baax sant bu amul ab di rafetlu bis bi di ñaan suñu borom yàlla dañu may kàttan ñu koy gën a bari la bisu mel nii ndax bisu ngëneel la rek bisu bisu lislaam la bisu yokkute la donc bu ñu sañoon saa su ne ñuy jóg di dem ci bis yu mel nii donc dañuy sant yàlla encore bu ñu ci boolee tey foog naa ni état lu bari li mu def jëmale ko ci daara yi président Macky Sall def ko foog naa mosu fee am Sénégal te loolu rek euh, doy na pour ñu sant yàlla xam ne lépp lu ñu bëggaat ci daara war nañ ko mën a am ndax jéego yu rëy yi ñu ci def président Macky Sall def ko ci bu ko limee sax du mat waaye mën nañ ci jël rek li nga xamante ni moo mujj xew muy 6 milliards yi nga xam dagg nañ ko ci budget état jëmale ko ci alxuraan jëmale ko ci daara loolu kuy nitu daara wala ngay nitu lislaam la war nga ko rafetlu ndax wàññi boo gis ci benn lay tàmbali. jéego bu may bu mag boobu mu defagul jëmale ko ci daara yi loolu mérité na lu rëy rëy te loolu day taxit ñu yaakaar bu subaa lu ko raw mën nañ ko am ndax comme am nañ tey ñu dagg ci budget état lu toll ni 6 milliards ni dañ koy jaglele daara yi jaglele ko ay subvention yoo xamante ni dañ koy jëmle ci dundu xale yi jël jëm jëmle ko ci prise en charge yi problème mu daara yëpp bu subaa mën nañ yaakaar ne lu raw 6 milliards dañ ko amaat bu soobee yàlla waaye lépp rek mi ngi tënku ci taxawaay bi daara yi di taxaw maanaam fi mu toll nii li daara yi def ci njàngalam xale yi li daara def ci ci lislaam bi li daara def ci ci dicteur dicteur xale yi ci lu baax kenn mënu koo fay kenn mënu koo natt kon bu ci jéego amee bu jógee ci état ñëw ci ñoom bari na bariwul nañ ko rafetlu waaye xam ne bu subaa mën nañ am yaakaar ndana yokk foog naa loolu dal na xel donc foofu daal la ñuy commencé ci sant président Macky Sall bi mu amee xelam mu sel am xalaatam jëmale ko ci daara yi jëmale ko ci njàngum alxuraan bi yaakaar ni bu subaa keneen kiy ñëw di ko remplacer dina gën a am taxawaay bu gën a dëgër pour conforter li président defoon mais yokk ko ndax wax nañ ko li daara yi soxla bari na yaatu na waaye bu sooba yàlla am naa ja yàqin ni yoon wi ñuy jël daal bu ñu ko wàccul bu sooba yàlla feek atu néew waxuma lépp dana faju waaye lu ci bari danañ ko def ñoo ngi ciy liggéey lu am solo ndax keroog bi lee président Macky Sall recevoir ca Ndakaaru muy journée boobu nga xamante ne da koo jagleel daara yi pour waxtaan ak daara yi pour xam seen jafe-jafe président joxoon ci ay instructions yu ferme ni nañu financé nday daara yi ñu ngi waxtaan ak ñoom commencé nañ waxtaan ak ñenn ñi pour identifier d'abord activités yi nga xamante ne ci lañ nekk ñoom ak naka lañ leen ci mën a jàppale def ci euh, sunu sunu sunu maanaam suñu doole suñu effort yëpp ba bu subaa bu ñu fi dajawaatee fii bërëb bi ñoom dinañ waxal seen bopp ni ah ñun ndeyu daara yi de commencé nañoo gis suñu bopp ci état loolu mooy suñu bébét te loolu mooy sunu yokkute foog loolu moom ñoo ngi ciy liggéey lu am solo.